Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf parti pastef gi ñu tas ki ko jiite woon di Ousmane Sonko bu amutuk pastef dëgg fàllu mbaa fàlle dana ko ta li tax mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu raye nañu tur Ousmane Sonko ci liste électorale yi ndax condamnation par contumace gi gàlle ci ndoddam lettre bi nee nañu sous-préfet bu Ngor Almadi jébbal na ko commissaire bu jëppal derkle ngir mu yegge ko borom Pastef daan yi ñu ko daan ci coow li doxoon diggam ak Adji moo fa jaar ci jamono joojee Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne ca mairie bu Ndakaaru lëngoo ba woon ci diggante taxaw bu ñoom Khalifa Ababacar Fall bu parti Pasif mi premier adjoint meerum Dakar dañu ko tëbal ndax mbiri parité candidat bu jigéen bi waa parti Pasif sampon bëggoon mu wutu Abbas Fall ca poste premier adjoint maire bu Dakar moom it dafa ñàkk madame Ngone Mbeng bokk ci taxawu Dakar moom lañu fal premier adjoint bu maire Dakar journal Life bind ci xëtamu njëkk ni bëjoo ak réeroo gem ci diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mu di diel entre Pastef ak taxawu mbir law nañu ba yegg ca maire bu Dakar bés bi le jour di ko ci xëtamu njëkk di ñu ma vox populi mel ne ku naan ñu plus graw am ci biir opposition bi ndax kii di Khalifa Ababacar Sall moom ak waa këram yi di waa taxaw di ñu sos yeewi askan wi waaye yeewi askan wi daje nañu démb ba génnee Khalifa Ababacar Sall dàq ko ci conférence di leader bu yeewi askan wi li ko waral l'observateur nee nañu mooy ni ñu taxawalee bureau municipal bu mairie bu Dakar ndax nee nañu waaye yeewi dañoo jàpp ne waa taxaw bu Khalifa dañu ciy dugal ay wor jëlee gi ñu jëlee Abbas Fall ci siisu premier adjoint mairie mi guddi yi ñu toll jege nañu lool waa Benno Bokk Yaakaar le témoigne ne ko te lu wér kër Khalifa sali di wa taxaw ak wa kër Macky di wa Benno Bokk yakar jamono ji dañoo mel ni mburóokum sow Walf Quotidien ñu dafa feeñ sax ca mairie bu Ndakaaru ci bureau bi yees ba ñu fa samp démb fa ne taxaw ak wa Benno ñoo gi dundu sen best lune de miel ñoom waa Benno Bokk Yaakaar kan mooy doon seen candidat ci élection présidentielle 2024 la tribune di ñu wax ne kenn tanewu la ci te nag suñu moytuwul danañu gis ñetti candidat yu Benno Bokk yakar yu bokondo subondo ci élection présidentielle 2024 ndax ñii xëccoo yëf yi amul kenn ci ñoom koo xam ne pare nga ngir bàyyi sa morom mu dem du Mahammed Boun Abdallah Dionne du Abdoulaye Daouda Diallo du amadu Mame Diop te it du Amadou Ba moom Amadou Ba moomi député Alimani président conseil départemental bu Nioro bokk ci parti socialiste mi ngi leeral ci xët mu njëkk tribune ci biir parti socialiste ña fa nekk 90 pour cent yëpp seen choix Amadou Ba la honorable député Alimani dolli ci weddi li ñuy wax ne moom ak Aminata Mbengue Ndiaye njiital parti socialiste dañoo réeroo ci choix candidat Benno Bokk Yaakaar Alimani nee na ci yéenekaay bi loolee amul ku wax wax ngay sos wax nga waxi yàqkat parti socialiste mooy Aminata Mbengue Ndiaye te man tey laa gën a dogu nekk ci wetam topp ci ginnaawam ànd ak moom ñëwee li ñuy xeex ngir kii dooni candidat bi benn bokk yaakaar di tànn doon ko mën a saafara tawate askan wi Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social ak bokk ci candidat yi ñuy dégg ci candidature benn bokk yaakaar mi ngi ci xët mu njëkk journal la mandat ñi bokk ci APR te fare ci diwaanu Ndioum yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne nee nañu seen bëgg-bëgg mooy Abdoulaye Daouda Diallo doon candidat bu benn bokk yaakaar ndax nee nañu ba muy miti ñuy dàq Macky Sall ci biir parti démocratique ak di ko indil ay ñool espagnol Abdoulaye Daouda Diallo mo takkonu fitam jital ngorom dem andaji ji ak mom ngir jëmmal yene président Macky Sall gi jëm ci suqali diwanu Tambacounda ba def ko pôle de développement économique ak social tirbi nenañu mo waral président conseil départementalu deuk ba di Mamadou Kassé dajalé won maire yi deuk ba ngir ñu jëmbat ji yi ci l'essentiel manam li farata fot fot taxul mbam tàggoo ki nopam tek loxo gi ñuy tek loxo farandoy Ousmane Sonko soursoa nee nenañu mi ngi wéy ba légui ndax dembu rek amna ñaar fukki patriote ak ñatt yu yobu ci kasso ba mom yene kay bi di mi ngi ñuy waxit ne ba dembu rek buñu militant Pastef yi ñu yóbbu ci kaso ba ëpp nañu 800 personnes di juróom-ñetti téeméeri nit nit ñi demoon songi ambassade du Sénégal ba ca Canada caxat-caxate ko yàqate ko Le Quotidien nee nañu bu ñu moytuwul tama leen ëppi buum ndax ñi def loolee ñi ngi leen di wër wër gu mit am na lu mat fukk ak juróom ci ñoom ñoo xam ne xàmmee nañu leen xàmmee seeni kanam li ñu xamagul mooy fan la ñu nekk direct news mel ne ku naan ñu dafay yàgg rek waaye dinañu feeñ ndax unité des enquêtes criminelles bu police bu Ottawa dugg na ci ñu génn fa dellu jël soleil national mi dugg ci marché bi ngir waxtaani ndugg mu seer mi ci yéenekaay bi lujum yi ak ni ñu seere jamono ji sole national mi ngi ñuy wax ne dafa feeñ bu baax a baax ci poos yi borom kër yi soble si waral coow leeg li lii quotidien xëy na da ca laaj ab laaj boo xam ne leer na ma ne njóobeen ni ak séeréer yi duñu nangu laaj bi jëm kaw li journal bi di laaj moo di est-ce que duñu jàpp ci yàlla génne soble si ci li ñuy lekk